dafay fédéré ñéppay woy bu soobee yàlla xanaa nga ne intéressé wu ma wala amu jot mais ñépp laa woo am na ci ñoo xam ne sax xam naa ne du ñu ñëw mais woo naa leen xamul tax dama bëgg bés bu ma toggee ci plateau suñ ma ko laajee ma ne leen woo naa ko moo ñëwul ndax xam naa fi tam ni seen xel di ba di mbalaxe ñëpp laay woo même su ma wëree ne su ma la wooyee doo ñëw dinaa la woo ndax bëgguma kenn ku ma ŋàññi Papa Diouf bi ma koy woo ci ab rajo la laa ko wooyee muy def émission rajo RTS ma woo ko en direct xanaa yow Papa Diouf nga. waaw léegi nag. bindal ne man maa ko woo en direct muy def émission à la RTS ca ah ah waaw ma woo ko mu ne ma damay ñëw père damay ñëw ma toj fii ñëwagul nag kon ne ko sa bàyyi coon nee na nga ñëw toj fii ok woy na bu yàgg ak <laughs> ak Youssou Ndour que kan non ñooñu ñooy mujjee wax naa la ñooy mujjee yeneen version yi bon euh, xam nga nag comme bu Casamance mooy jëkk a génn il faut ñu may ko chance aussi tam mu def un petit chemin parce que euh, boo boo ki tegatee leneen rek xam nga fii mooy Sénégal gars yi lu bees lañu bëgg da koy may temps mu def touti chemin ba gars yi ba ba découvrir bagage yi nag et puis maa def exprès ñoom ñoom seen voix yëpp dama ko tëj mais ma mën nañu way de léeg-léeg la maa tëj voix yi pour que le cinq boo demee ci YouTube bi au moins nga am loo découvrir moo tax ma bàyyi man sama voix rek di dem mais mën nañoo way dëggantaante le cinq bu ngeen demee ci YouTube bi incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee noonu di ngeen xam ne euh, ba Casaase yi mën nañu woy ay lan autorité kenn jàpp ci waaw kenn jàpp ci gis nga woy yëpp yëpp jiwoo la man woy naa ba pare bon je m'explique su fekkee ne comme yow voilà sama doom gi toog ñu koy wax euh, Mariama Ba ngir repos moom sax ndeysaan xam naa ne projet bi dina ko suqaliwaat ndax ndax ndax moom kenn xamatul woon fu mu ne moom mën na leen expliquer su ma woyee ba pare maa ngi woy diis paragraphe moom ma invité ko mu ñëw woy day woy cinq paragraphe rek tout court léegi cinq am la ñuy teg ak sama bos duo bi diggu na direct xam nga la moo des mu dem tourner ba kilibam à gauche man ma dem tourner ji à bu ñu paree ñu monte mu mel ni maag moom ñoo taxawoon nii di di ko tourner leer nag sa bopp gisaguma kenn laa wax xam nga euh, ki ci gën a kowe nga xam ne charte réew mi moo ko tënk muy le chef de l'État wax na ko sànq moom mooy le protecteur des arts et des lettres et des artistes ndomba tànk la bu ko réew mi jox par force moom fexe naa ba mu yëg ko ba ñu toog ñu wax ci ma tegal ko ay version mu ne ma déggoon naa ko mais xamee moo ko ne ko nii la kontaan naa ci kontaan naa ci li mu jóge ci un Sénégalais te sama gouvernement dinañ ci jàpp moom yéeg na ko ah, man de gëm naa li mu wax wax dëgg yàlla waaw waaye ah, ba gëm naa ne dina ñëw yow nag doom nag sa yow ñaata question nga posé yow waaw wax naa ko ci YouTube bi ki ma woo nga ñëw ne papa sama rêve mooy ma diwoo ak yow doy na ma sëkk kooku rey na ma ba ma de ñoom ñépp loolu lañuy def moo tax ma ni ku ki nekk bu sa version génnee ñu defal la ko ci YouTube bi parce que man li may li may def mooy dama lay tourner trois clips may la ko bu ko defee nga am visibilité ci net bi ak ki ba ci télé yi ok buñ ñu sa version ci YouTube bi yàlla nag mooy séddale mën na barkeel sa bos mu am loo xam ne kawe na sa njort sax ak man mii lu mu mënti génne may naa la à vie cinquante pour cent yi nga boole ko ak say droit voisin te spectacle yi ñëwagul nag parce que spectacle yi moom il faut mooy nekk ci ca kanam léegi nag gain yi jóge ci spectacle yi moom bon loolu moom. buñ ko tollee rek ku ci nekk dinga xam ne joué nga ñaati nangami temps eh, maanaam ceeñ gi lii la am ak lan ñëwal doom. projet bi am na léegi cinq ans juróomi at ñu koy togg. moo tax mu metti premier phase bi war a génn moo tax ma ni je démarre par les versions Casa 16 wax naa ko léegi le 5 ah doom yow yeeg maa ngi toog yow nii à zéro mètre yow kon déggu li may wax ah léegi nag non non man dégguma làng joola dégguma séeréer mais boo ñëwee ne ma man maay diw foo dëkk nga ne ma Fatick ñu bind Fatick ah, dégg nga français nga ne ma waaw kii mooy sama secrétaire mu jël texte yi jox la ne ne la toogal ne le temps bi ngay toog ne ñu ngi teg ay version wu keneen pour nga déglu rek que musique bi nga comprendre ko même su fekkee ne kii ki ki ngay déglu woyul séeréer comme yow mais nga comprendre musique bi su ma la nee su ma la bàyyi nga déglu lu ma 30 minutes man la comprendre nga musique bi nga ne ma waaw man léegi nag boo demee da ngay traduire ci sa langue ñëwal tel date am na ñoo xam ne bu ñuy ñëw moo bi ñuy traduire dafay gudd ba dépasser musique bi man foofu lay intervenir. ma man maay jël bien dégguma langue bi nga wax mais man maay jël baat yi di ko damat di ko dammat pour euh, sens bi bañ a dem ba mu tombe ci longoori musique bi net là c'est bon ak du changé dara du changé ñëwal doom bu ànd ak dogalu suñu borom képp ku bokk Fatick nga participer ci projet bi dina am benn bis boo xam ne ñu ñoo lay fekk si ki sa dëkk yow pour sa waa dëkk ñu xam ne yaay kan dafa concert bu rëy question bi nga posé nii kontaan naa ci parce que fekk na loolu dëxëñ nañ ko ci biir. waa xam nga genre projet bu mel ni na siiw rek gis nga bu siiwee am na ñoo xam ne ñu ngi toog di yeeru di xaar genre yi rek te nag boo ku dund ba déwén lekk ba déwén ñu ñu ñëpp yàlla moo ñu yor donc da ngay doomu aadama da ngay def rek yow li li nga war a def mais li ki des nga bàyyi ko ci loxo yàlla loolu moom doom duma ko wax mukk may for rek euh, euh, di di ko def rek yëfu mag ba su su ma amee fukk joxe euh, juróom benn yi def def ñeenti ci poos bi xam nga te euh, doom bi ñu ko quantifié ba def ko ci business plan bi ba génn montant bi loolu loolu moom bàyyi rek la neex rek mais bu ma laaj waxu politik bu ma laaj waxu Ablaye Ndour Ndiaga Ndour rek Matar nduur bu ma laaj affaire keneen du du mu wax ci loolu du mu wax ci loolu ak ban ah, ok sama projet non yéenay laaj rek man moom da man yéen dong la la la lay déglu man kay man waaw parce que tout à l'heure parce que yaa mm-hmm. ce que ça veut dire que ne bu yëpp pare est-ce que daal li ma faral di wax mm-hmm. jullit mm-hmm. boo dundee li yont yàlla Muhammad dund sallallahu taala loo ci teg bénéfice la Papa Thione du du ndax boppam de Papa Thione ngi ci sursi tu comprends ah. ndax euh, man bonus laay dund ndax romb naa la yonent bu dund ba pare yàlla nag moo xam nag kañ lay jeex ok mën nañu wax ne peut-être mooy sama dernier projet peut-être laa wax yàlla mën ne ko tam ful tam ubbi xéwal yoo xam ne mën na wax ne non bi bi bi mooy avant dernier waaye du dernier loolu loolu yëpp loolu yëpp mën naa nekk